suratul baqara mooy ñaareelu saarci ci kaamil bi boo ne fatiha rek baqara nga ci teg wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daaci a ah, aaya la boo xam ne daf ñuy jàngal nan la ñuy ñaanee yàlla xam nga di ñaan yàlla ak mën ñaan yàlla du benn waaw war a xam naka la ñuy ñaanee sunu boroom ah, arab yi dañu mës a def benn délégation ñëw ci yonent bi même su fekkee am na ci ñoo xam ne kokkali moo leen taxoon a jóg ne ko yaa rasulallah dañu bëgg nga wax ñu yàlla su fekkee moom ku jege la bu ñu koy ñaan ñu wax ndànk su dee mi nga nuy dégg nga wax ñu itam bu dee sori la ba buñ ci suuf duñu dégg nga wax nu rek ne nu ku sori la bu ñu koy ñaan ñu yuuxu ca kaw ndax mu déggunu man ñoo fajal suñuy aajo tey yalla ne yonent jaru ko man man man fan lay dem bay sori ah, yalla fan lay dem bay sori yalla ne ko man kay maangi fi mustuma fi jóg ma fi jog problème bi kay moy nañ ma woré te bañ ma bokalé so ah, soo sa bokalé di wona ah mbir ma man na yex waye buñ jaaré fañ wara jaar woma rek ma wuyu len parce que man yalla ma leen gëna sin jege seen buumu xol wa ida saalaka ndem laaj na la yow yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibaadi sama jaam ñi an nii ci man yàlla fan laa nekk dama soreem dama jege wax leen fa inni man yàlla qaribun ku jege la ujibu dinaa nangu daawata daa'i ñaanu aji ñaan ida daani ndem ñaan na ma aji ñaan bu ma tàllalee loxoom <clears throat> ñaan ma nam ma war a ñaane Ah. man seen boroom dinaa nangu ñaanam dinaa ko wuyu kon nag léegi fal yastajibu lii wuyu leen ma yéen tamit na ngeen ma nangul te wuyu ma wal yuminu bii na ngeen ma gëm laallahum amaan na ñoom ah yarshuduuna daañu gindiku wala boog fal yastajibu lii nañu ma wuy si ñoom it nañ ma nangul nañu ñëw ci diine ji nag wal yuminu bii te nañu ma gëm amaan na laallahum bu ñu defee loolu yarshuduuna daañu leen gindi ñoom it daañu gindiku kon ñaan ngi noonu doomu aadama bu nekk war na di ko bàyyi xel xam ne lu am solo la ci jaam ak jaamu yàlla la wax nañ ko ca aaya bu njëkk ba la ñu romb woon aji ñaan ji itam na bàyyi xel ne kuy ñaan dangay ngay laab kuy ñaan dangay ngay moytoo lekk lu lewul nit daal bu dee li muy jëfandikoo lew na ñaan gu nangu mën na ko yomb lool te booy ñaan nga ñaan yàlla bañ ko bokkaale ak dara loolu bokk na ci li tax nit ki ñaanam yi di gaaw a nangu ak la ngay ñaan it nga teewlu ko nag teewlu ko te mu ñor la xomm jox teggin yaag xorma ya yell ca buur ba ngay ñaan di toroxlu ci kanamam loolu de mën naa tax ñaara fu ab jaam ne allahuma rek yàlla nangul ko sadaqallahu alazim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.